li ci ëpp ci waajur yi des fois dañuy tooñ sax laa mën a waxee ko dañuy tooñ seen doomi góor yi ndax lan sëyu mbokk te fii ci Sénégal ku ne xam nga ne sëyu mbokk mën na dem kon mën na bañ a dem te bu yàqoo it mbokk yi yàqu kii nag benn moodu moodu la yàlla def na mu musa am jabar tàqali koog moom waaye ba ñu tàqali ko mu delluwaat ci bitim réew ah ay waajuram ni ko toogaay baa ngi bëgg a yàgg foog nga takk jabar mu ni leen pare gu ma ñun ko mu ni ko di nga pare tey ndax gisal nan la te kin la gisal sa doomu bàjjan la xawoon naa sikki sàkka sax ndax nee na lu ci ëpp sëyu mbokk bu yàqoo mbokk yi yàq waa ji convaincre ko ne ci lépp ci biiri mbokk la dañ koy arrangé ba mu baax mu dugg ci ndax déggal nag ay waajuram ba ci duggee moo xale bi gëj nañoo gise juppi ay xale temps xale ba mënuñoo sa xàmmante ñu dem ba ci biir ñuy déggante téléphone sëy bi takk nañ ko ñuy déggante téléphone comme couple yëpp yi nga xam ne à la xale bi commencé comme si que waa yi daf koy énervé su ko woowee téléphone danaan ko dama jàpp wala damay damay génn su wootee seen kër ana diw ñu ne ko génn na te du ko tàggu loolu métti waa ji lool ndax nee na moom bu sañoon bu jabaram nekkee Sénégal moom mu nekk ci àll bi di bay di rey boppam ngir jabaram au moins bu wàccee jabaram war na koo mën a waxtaanal waxtaan buy dëfal xolam buy seddal xolam mais nee na loolu yëpp am jabar ji daal yàqamtewu loolu jëkkër ji ni ko yow fan nga dem ba mu ne ko lan nga may laaje fu ma dem xanaa wóolu woo ma nee na mu bañ wax rek teg wax ci nee ko bu nee maa sama kër yaay mu ne ko jox ma sa yaay mu ne ko xaaral day sangu nee na ci xaaral boobu day coupé balaa mu koy jox yaayam dina mat trois heures de temps mu doog koo jox yaayam mu waroon ne kii mën na jóge kër ak kër wala dëkk ak dëkk nee ah bi mu ko defee mu woote waat seen biir kër ni ana diw ñu ne ko diw newu fii bu mu ne ko foo nekk mu ne ko maa ngi ci biir kër gi te moom xam na ni ndaw si kat day fen nekkul ci kër gi léegi nag muy laajte ndax nee na dem na ba xamatul yëf yi lu mu koy mujj ndaw si di ko attaque ay histoire naan ko dangaa sonle dangaa lëgle amoo confiance ci kenn nee na moom amul ku muy waxal nee na dem na ba bëgg a tux cigarette dem na ba bëgg a naan ndax day bëgg bu wàccee stress am deñ ndaw si di ko yokk stress nee na mu teg lépp nee na ndaw si fu mu mujjee mooy dem moom ci ay waajuram nee na ba fa demee lu ne mu waxal ko ko ne du ko toppatoo du wax ak moom lu néew lu ñaaw lu ne waxal na ko ko waa nag amul lu dul ay waajuram bëgg leen lool ndax waajur yooyu ñoo tax tey jii ba takk gi am ak déggal leen ah, nu ñu mujjee ndax waaji bu waxee waajuri ni ko du noonu kii jigéen la danga koo war a muñal ndax sa doomi bàjjen la sa jabar àqin la kon dangaa war a muñ yow góor yaay muñ pour famille bi bañ tas nee dafa muñoo muñoo muñ ba la mu doon bañ a def lépp da koo def mooy lan mooy nee mi ngi tox mi ngi naan ndax lan doomu nijaay ndax lan dugg famille du tas ndax nee nañ ko bu famille tasee yow yaa koy tas nee na moom day laajte tey nan lay def ndax sonn na te it jaaxle na